fi nekk di nuyu les jeunes entrepreneurs du Sénégal voilà di leen remercier parce que ku ci nekk tey da nga tëj sa boutique ñëw nekk fi tout la journée malgré man leen waxoon quinze heures man ma tardé leen ba heure bii di nuyu aussi suñu photographie Moma ak Mag Vision di nuyu aussi ki nga xam ne moo ñu waroon defaral vidéo yi di Belle Vue di nuyu la presse di nuyu suñu. Euh, géwél yi nga xam ne tey ñoom ñoo ñëw dooleel ñu nekk fi ak ñun tey nag euh, dañ fi ñëwoon pour def lancement suñu foire bi ñuy amal le 28 le 29 et le 30 juillet fii ci si CICES pavillon Sénégal plus de cent 265 stands di ci ànd ak toutes les jeunes entrepreneurs du Sénégal ñëpp nag léegi nag on waa commencer ci discours bi après ñu bàyyi suñu kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk muy suñu président Bousso bi nga xam ne depuis même sudee association bi ñëpp xamuñu ko mais ñun ñi toog nii ci kanam xam nañ ko parce que tout le temps mu ngi ñuy yóbbu ci kilifa yi du ñu jàppale pour ngóor gi mën a teg loxoom ci suñu association bi ñoo ngi koy remercier bu baax a baax. L'honneur de vous Au nom de tous les membres de l'Association des jeunes entrepreneurs et au nom de Mami Evans, les remerciements les plus sincères pour avoir bien voulu honorer à ce grand rendez-vous de l'entrepreneuriat jeune. Permettez-moi de vous exprimer à vous, mesdames et messieurs, la gratitude de toute la communauté pour avoir accepté d'honorer et de rehausser de votre illustre la première édition de ce foire, afin de développer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. C'est donc avec un plaisir assez singulier que je prends la parole en ces lieux, à l'occasion du lancement officiel des activités du foire du 28, 29 et 30 juillet, avec plus de 200 stands. Un outil qui se veut constructeur des valeurs entrepreneuriales autour des jeunes qui contribuera à la croissance économique et au développement durable et se projette comme plus grand carrefour de l'entrepreneuriat jeune en Afrique. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour son engagement durant cette première édition. Mesdames et messieurs, chers invités, la population sénégalaise est composée de plus de 70% des moins de 40 ans. Cette réalité nous dicte la stratégie à adopter, inscrire tout simplement la jeunesse au cœur de nos actions. Tel est le leitmotiv de notre action et de son espace de commerce privé, pas comme les autres. car nous en sommes convaincus, le développement de notre pays dépend euh, de la capacité de nos jeunes à entreprendre. Cette conviction devait également habiter nos esprits, car tous sommes acteurs du bien-être économique et du développement durable de ce beau pays. Mesdames et messieurs, chers invités, l'entrepreneuriat est un moteur de croissance économique car il est créateur d'emplois et de richesses. L'entrepreneuriat favorise l'innovation et contribuera par là même au rayonnement du Sénégal. Mais nous comptons nous en arrêter au beau milieu de notre chemin car nous prévoyons de le tenir en Gambie. Ainsi, partout en Afrique. Nous croyons que l'innovation, si elle est portée par des jeunes entrepreneurs sénégalais sur le sol sénégalais, va contribuer au rayonnement du pays à l'international. Chers frères et sœurs, nous avons en nous l'esprit du travail, l'esprit innovateur. Nous sommes une jeunesse dynamique et nous pouvons honorer notre capacité à pouvoir faire, mais aussi bien faire. Dans notre vie de tous les jours, nous devons cultiver certaines valeurs qui consistent des vertus cardinales qui fondent et favorisent notre société. Il nous faut ainsi faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d'intégrité, mais aussi et surtout d'humilité. Humilité, oui, car les hommes et les femmes de valeurs sont ceux qui cultivent la modestie. L'humilité est en effet la preuve d'une grande force de caractère. Chers frères et sœurs, travaillez, travaillez, travaillez. C'est le reflet des courageux car le monde appartient aux veillants. Travaillons donc, parlons peu, agissons plus car s'ils le parlent sème, ce sont les silencieux qui récoltent. Mesdames et messieurs, et messieurs les directeurs d'entreprise, chers jeunes honorables invités, l'Afrique a besoin de nous, l'Afrique à besoin de vous. Vive la jeunesse sénégalaise, vive la jeunesse africaine, vive le retrouvail des jeunes entrepreneurs, vive le développement du pays, vive Mami Evans. Je vous remercie. mbokk yi ñi fi daje yéen ñëpp ñu ngi leen nekk ku ñu ngi leen nuyu ku nekk ci turam ak santam di rafetlu jataay bi. di rafetlu teewaay bi aussi di am mbégte bu ñu ñëwee gis ay ndaw yoo xam ni ku nekk fi nga jóge ak fi sa moroom jóge bokkul ku nekk li ngay def ak li sa moroom di def bokkul ñu tuddee seen bopp les seen entrepreneurs ku nekk am ci looy yëngu ñu ñëw xam ni réew mi fi mu toll li koy doxal ak li koy jëmmal ci ndaw ñi la mën a jóge mm-hmm. ñu ni nañu dajaloo ñu wone wax xamal réew mi ni ndaw ñii tey ñooy doon ay mag ëllëg ndaw ñii tey ci la ministre yi di génn ëllëg ndaw ñii tey ci la président de la république di génn ëllëg mm-hmm. ndaw ñii tey ci la suñu député yi di génn ëllëg ndaw ñii tey suñu DG yi ak suñu directeur directeur ak directrice yi toog ëllëg ñii doon ay ndaw nopp topp seen ginnaaw ñoo leen war a remplacer ëllëg bu ñu jëlee programme bu toll nii pour wane ndaw naka la naka la war a taxawee ci dundam ndaw naka la war a taxawee ci réewam organiser lu toll nii suñu ko fekkee du ñu def du ñu man mën a def lu dul li ñu def mooy ñëw xool nu ñu leen di accompagner xool nu ñu leen di jàppale loolu mooy suñu teewaayu tey fii loolu mooy suñu ay tànk groupe bi nag ñu gis mën na am lancement bi ñi fi nekk mais ci foire bi dina gën a yaatu pour ñi nga xam ni ñooy ñëw xëj na di doog a ñëw te xamaguñ lan mooy importance ak solos bis bi tey la tey la ñuy def lancement pour ubbi wane ni am na ndaje bu fi war a am boo xam ne mu ngi am la vingt huit vingt neuf ak trent lan moo fi am mooy ay jeunes yu dajaloo ku nekk métier bi nga nekk ña nga ci jël mu néew mu bari ñu nekk di liggéeyandoo ak yow ñu indi la ñu indi la nga wone wone li ngay def wone li nga taxawal wone ni nit ñi dañu war a góorgóorlu ku nekk taxawal dara waaye wut yokk yaatal ndax ku ci nekk ci ñoom ñii fi toog ñii am nañ ay boutique am ñu ca nekk di liggéey ñii am nañ ay tailleur lañ am ñu jël ñuy liggéey ku ci nekk li ngay def am na ñoo ci jël ñoo xam ni say employé lañ di liggéeyandoo ak yow loolu mooy taxawaay ak solos njariñu bis bi ñun suñu coono bii ñu ciy sonn dañoo tolloon ñoom fi ñu tolloon bi bi fi ngeen toll bi ñu fi tollee ñun bu fekkonte ni defuñu ñun nii ñu leen def ñëw di leen taxawu di leen jàppale amaana ñun fii ñu egsi duñu fi egsi dañ taxawu jàppale ñu bañ egsi fii loolu moo tax ñun tamit ñu war a fay naar bi xorom mooy bu ñu gisee ay ndaw yu toll fañ tolloon doon di jéem lañ doon jéem ñu accompagne leen. loolu moo loolu mooy solos bis bi ñu xam ni kon dafa am ndaje mu fi war a am le 28 ak vingt 29 ak 30 àdduna nit ñëpp bàyyi xel te jàppale leen. man nag dama leen ñaax li tax ma leen ñaax mooy bu ngeen ko defoon muy juróomi nit juróomi nit. te dëggu wane ci ambition def ci li ngeen ci war a def mu réussir rek am na njëriñ du nit ñu bari ñi du mbooloo mu bari mi yéen ñëpp ku ne xam na ni fii yéen ñi fi toog ci ñi xam ku nekk boo wowoon sa ñetti xarit fii waxuma saal bi mais si sas day fees mm-hmm. kon du solos affaire bi solose du mbooloo mu bari mi ak xumbaay beegee ca aju solo si mooy wone nit ndaw nan la war a taxawee ak fan la war a jëm moo tax ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal li ngeen taxawal yàlla defal leen sutura yàlla mottalil leen ko te ngeen am ci ndam ngeen organiser ko bi mooy première fois ngeen organiser waat ko ba di ko organiser mu nekk journée internationale fu ne nit di fa jógee di ñëw di ko def ndax gis ngeen ñi ngeen def nii fu ngeen dem man wàcc naa fu ne ci àdduna bi fu ngeen dem fu ne am na ay jeunes yoo xam ne nii yéen lañ def am na ay jeunes yoo xam ni nii yéen lañ def di organiser wu nekk ay entrepreneur di góorgóorlu tey war ngeen mën a dem ba ni journée bi da ngeen koy def journée internationale ñëpp dugal ci seen loxo fu ne nit jóge fa ci àdduna bi ñëw fii fekk si leen ngeen di ko organise te loolu lañ leen di ñaanal kon nag na ñëpp xam ni loolu mooy solo bis bi. waaye nag bis bi am ay partenaires yoo xam ni ay partenaires yu am solo lañ comme ni ñu ko waxee léegi waa ONFP e ñëw nañ fi léegi madame Touré ñëw na léegi nga xam ni moom mooy jëwriñ ji nga xam ni moom lañ fa dénk lépp lu jëm ci wàllum formation. nga xam ni moo koy doxal. monsieur Ka aussi ñëw na lépp lu jëm ci orientation pour ma gën ko yombal bi ngeen nee cëpp ONFP bu fekkoonte ni dajewuleen leen woon ak ku mel ni Moussa Kami mu orienté leen du ngeen àgg ci DG xam naka ngeen di déposé seen ay lettres xam ni fii ONFP li fi nekk jeunes yi ñoo ko moom ñu expliqué leen ko ba mu dugg ba mu dugg ci seen bopp ba ngeen mën cee jariñu ba tey ñoom ñëw fii di leen accompagner. ñu mel ni caisse de caisse de dépôt CDC ñëpp xam nañ ni ñu ngi dugal seen loxo ñoom tamit di jàpp ci bis bi. Euh, lu mel ni direction de l'emploi aussi ñoom it ñu ngi organiser wu di xool aussi naka la ñuy àndee ak programme bi jàppale leen ministère de l'enseignement supérieur aussi même chose. noonu lañ ko mën a waxee ci ñu baree bari ñoo xam ne ku nekk yaa ngi intéressé wu tey pour ñëw dugal sa loxo ci liggéey bi te li may defaat mooy damay defaat appel bépp autorité boo xam ni yaa ngi ci réew mi di gis xale yii ñu toog ku ci nekk ubbi dara di daan sa doole te mënoon a dem defi leneen nañu leen jàppale mm-hmm. président de la république ak mbooleem ñi mu àndal ci réew mi di liggéey li ñuy santaane leen képp la mooy nañu jàppale ndaw ñi président de la république ñaata discours am ngeen dégg lu muy wax boole ci nañu taxawu nañu jàppale jeunesse bi kon nag yéen ñi nga xam ni yéen lañu ko dénk nga xam ni yéen a dox diggante président de la république ak askan bi ñu dénk leen ay postes jege leen askan bi ngeen gën leen jàppale te xam ni ñii ngeen di jàppale ëllëg danañ toog ci poste yooyu nga xam ni yéen a fa toog amaana ngeen soxla service sax fekk romb ngeen leen bu yàgg demande leen ko ñu war leen rendre service. kon nag maa ngi lancé waat appel képp ku nekk ci réew mi bàyyiwuma kenn nag bàyyiwuma kenn na ñëpp jóg dugal seen loxo ci jàppale ay jeunes yoo xam ni tooguñu di xaar kenn parce que buñ toogoon di xaar kenn duñ organiser lii. ñëw jël sa ñëw jël si ses indi ay journaliste jàpp dat wax kañ ngay commencé naka lay déroulé loolu ku toogoon di xaar kenn doo ko def ki li li olof Njaay di wax naan luy naawa neex a sànni mm-hmm. ñiy jóg di jéem dara ñoo neex a jàppale kon nag maa ngi lancer waat appel na leen kuy ministre directeur général DG conseil technique loo mën a doon te xam ni bis bii am nga loo ci mën a apporter mu ndaw mu bari dugal ci sa loxo nga jàppale leen parce que ay ndaw la ay ndaw la ñuy jéem te xam naa ni ëllëg ëllëg lii lu ñuy nettali la ndax mbooloo mu ngeen gis ak lu mën a xew dina am ñu ciy rëcc dooni dara ëllëg ci réew mi ñoo xam ne dañ leen yi bàyyi xel kon nag nit ñëpp dugal seen loxo maa ngi oo ñëpp bàyyiwuma kenn di bañ a fàtte aussi Africa Bloom ci suñu partenaire yi la bokk te insha allahu rabbi dina ci gën a yaatal ndax moom ku ne xam na ni jeune la boo xam ne aussi bu lay bu lay wax sax jaar-jaaram yow da ngay am mbégte bëgg a commencé di def dara fi mu commencé fi mu jaar ba fi mu yegsi exemple la boo xam ni dañ ko war di bàyyi xel di ko di ko joxe aussi ci jeunesse bi ñu siy bàyyi xel vraiment moom partenaire la ci programme bi te xam naa ni incha allah dina ci gën a dugal loxoom kon nag dañuy bàyyi jox waa ONFP ñoom ñu sànn ci tuuti kàddu ndax ñoom dañoo nekk kër goo xam ni kër gu am solo la. waaw moom woo naa ñëpp. waaw woo nañ ñëpp. waaw non woo nañ xam nga boo waxee président de la république. ak ñi muy àndal ñëpp ñuy taxawu ndaw ñi moom mu ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir woote bi bàyyiwuñ kenn képp koo xam ne yaa ngi ci réew mi te jàpp ni ndaw ñii dañ leen a war a jàppale ñu avancé ñu ngi lay oo pour nga jàppale leen ci le 28 le 29 le 30 mu nekk bis boo xam ne dana dox ba àdduna ñëpp di ko waxtaane te lu mën a nekk la donc li ma doon wax léegi ñëw ci ONFP ndax ñoom dañoo nekk kër goo xam ni. action bépp boo xamante ne président de la république ngir muy gunge ay xale wala muy gunge ay jigéen seen ndaje mi ñoom ñoo fi waroon jiitu. yéen waru leen woon di jël initiative bi di ko def ñoom ñoo waroon ñu parce que loolu mooy structure yi loolu moo ko tax a jóg dañuy jël structure ko teg leen di wëri ji xale yi yéen da ngeen a taxawal seen yëf waaw comme li waa waa waa ONFP def ak le directeur Mountaga ñu ngi koy sant bu baax parce que dem nañ fa mu recevoir ñu Mounirou donc li mu def moom moom la ñëpp waroon def xale yi ñoom dañoo taxawal ba am seen yëfu bopp di liggéey di jàppale seen ay wéyjo te ñi nekk almari wax naa ko keroog di jaay seen bopp maa ngi ñaan ñu génn ci wala jigéen ñi nekk ci mbedd bi di ñaan wala ñu nekk ci tiktok bi di ñaan wala nekk ci réseaux sociaux yi di ñaan xëy na bonuñu mais dafa am benn étape boo xam ne duñ ko ci seen dund mooy nit bu amul qualification professionnel may ma rek lay dëkkee autonomisation des femmes bi président de la république di woote du am mukk li fi ak jàngaluñu xale yi yar leen ba ñu am qualification professionnelle qualification professionnelle mooy li sëriñ bi doon expliqué léegi mooy bu ñu nee sàngam ji lañu war a nga am ci xarañte boo boo jugee boo jógee di ko def rek doo làmbatu ndax lépp loo songu te amul xam-xam dëpp ngay def benn borom xam-xam bu bu mag dañ ko laaj ne ko am réew pour mu développer fan la war a jaar war mu war a def mu ne aucun peuple aucune nation ne peut se développer sans avoir une jeunesse à la hauteur des défis à relever mu ne wenn askan wala benn réew mënut a développer te amul ay ndaw ñoo xamante ni am nañ xarañteg mën a jàppale réew ma ngir mu jóg ñi nekk ci mbedd mi di taal mbedd yi bu dara xewee bu leen kenn condamné dañoo amul ci luñ jàpp xool leen kuy taal rek koñ boo nekk ka fay tàkk fa dàqa taal amul liggéey deful dara di ziar ñi nekk suñu ginnaaw ñëpp di ziar ndax maanaam toogaay bi yàgg na quinze heures la ñu waxoon nit ñi ba heure bii man sànq bi ma fi ñëwee am na ñu ma fekk ñu toog fii ñu ngi leen di baal bu baax a baax événement moo demee noonu des fois nga am yoo prévoir yoo xam ne nii dafay retardé ñu ngi leen ci jégalu bu baax a baax a baax comme ni ko Mamy Evans waxee rek daanaka ñoom wax nañ lépp ñun dañuy tënk rek tëj ko di leen jox rendez-vous incha allahu rabbi ci jouru foire bi. bi le 28 le 29 et le 30 na ñëpp ñëw na ñëpp teew ndax nee naa ñii toog dañoo bàyyi seen yitte bàyyi seen boutique mhm. bàyyi ñu fa kenn sànq ba tey maa ngi dégg ñu naan sama boutique bàyyi mu fa kenn mais volonté bi ñu am gëm-gëm bi ñu am nekk ay jigéen nag wekkuñu ci ginnaaw kenn xaaruñu kenn mu defal leen dañu ne ñun nañu jug wutal suñu bopp nañu jug amal suñu bopp ngelawaay na ngeen ñu gën a jàppale na ngeen ñu gën a tette ba lu ñu bëgg mbébét ko mu sotti ak jàmm ak salaam ba ñuy toog naan lii mooy cinquième édition ba ñuy toog naan lii ba ñu ko daree def ay xale lañ ba ñun peut-être suñuy doom màgg ba koy def kon jàppale leen ñu bu baax a baax a baax liñ leen di wax dafa fees ci suñu xol xëy na mami moom dama koy wax sa jour ne ko jàmbaar ga ndax jàmbaar rek moo mën a bot moroomu jigéenam ndax jigéen bari na caprice jigéen bari na coow jigéen mën na gaaw a am avis mais tout le temps dama koy yërëm man sa dou suma déggante ak moom guddi ba guddi laa wax tey moom téléphone dama nakaan yow jàmbaar nga parce que li nga mën man mënuma ko parce que ni ngi ci toppee date bi reporté nañ ko à maintes reprises mais chaque jour yaa ngi gëm loolu nit ñi kën dina am ba yàlla dogal ko tey yow ngërëm ngi yëpp ci yow la ndax bu ñu toogoon suñuy kër rek woowoo ñu peut-être lii du am mais ku ci nekk yaa ngi koy woo di ko ñaax ku amul logo sax peut-être da nga koy tàppeel logo wala ne ko kaay ma defaral la lii pour rek mu avancer nee naa bu lëkk lekkee olof la ko gërëmee cooy lépp yow la. ak euh, secrétaire général bi dégg naa fi ñu jël parole dañoo ñëw fii di wax ci turu Mouhamadou Mounirou lii bi nga xam ne moom mooy. directeur général office national de formation professionnelle naam naruñu woon jël kàddu waaye kilifa bu la yónnee noo def rek da ngay jottale yóbbante bi nga xam ne moom la la yóbbante nga wax ko euh, ñi nga xam ne ñoom nga fekk fii euh, waa association des jeunes entrepreneurs du Sénégal Euh, bu ñuy jóg di ñëw mu niru lii def ñu ne bu ngeen demee ngeen wax les jeunes entrepreneurs fu ñu teg seen tànk foofu la ndax Sénégal dafa toll foo xam ne si ay jafe-jafe liggéeyu ndaw ñi président de la République di ci liggéey liggéey bu am solo mu teg ay banqaas yoo xam ne muy ministère de la formation professionnelle bi nga xam ne le ministre Mariama Sarr moom moo ko jiite si ministère boobu dafa am benn bànqaas bu mag bu am solo ñu tuddee ko office nationale de formation professionnelle te moom moo ko jiite euh, ONFP mooy service boo xam ne dañ ko dénk lépp loo xam ne dafa dem ci qualification professionnelle maanaam développement de compétence lan mooy développement de compétence foo munta dem ci réew yi nga xam ne dañoo développé dafa am foo xam ne foofu lañ tënk seen développement mooy lépp looy liggéey dañ ciy am xarañte dañ ciy am man-man dañ ciy am xam-xam loolu bu amul mooy indi nit ki nga avancé ba nga sori nga xam ne de yoon bi nga jaar du boobu donc service boobu ñoom la ndaw ñi nga xam ne tooguñu comme kii nu mu ko waxee ba ñu ñëw ñu ne leen kaay ñu dem walla kaay leen ma jàppale leen mais dañoo jóg def li ñuy wax jël seen destin en main. nara a aussi ci développement Sénégal donc ci loolu la ñu DG wax bu ngeen demee ngeen leen vraiment ñu ngi leen di encourager bu baax a baax ndax loolu moo jafe tey nga gis ay xale yoo xam ne dañoo gëm seen bopp wóolu seen bopp nar a demal seen bopp comme ki fi toogoon lu mu wax ñooñu dañ leen war a jàppale te le DG Mounirou Ly pare na nee na pour jàppale leen lépp loo xam ne soxla ngeen ko ci wàllu formation moo tax sax ñu ànd ak suñu jigéen bi nga xam ne moom moo yor lépp li nga xam ne moom mooy formation ndax ñu yokk seeni compétence ñu yokk seeni xarañte ndax affaire bi foofu la war a tegu lépp loo def te tegoo ko ci compétence doo sori doo man donc message boobu la waxoon tey ñu indi ko pour wane vraiment satisfaction bu mu am même bu dul dara yéen ñëpp ñoo leen war a jàppale ndax lu tax ñu war leen jàppale am na ñoo xam ne tey fu réew mi toll dañoo décider dem ailleurs waaye message bu ñuy lancé di wax la jeunesse sénégalaise que on peut rester au Sénégal avoir son emploi au Sénégal se développer au Sénégal et par conséquent développer la Sénégal donc ñi exemple bu baax la ñuy wane demuñu fenn suñu réew lañ gëm te dañuy toog liggéey participer suñu développement réew donc loolu la docteur loolu la euh, Mouhamadou Mounirou li comprendre pour mu ñëw jàppale leen te dafa am benn vision bu mag bi nga xam moom la am ONFP mooy accès équitable à la formation accès équitable à la formation mooy lan bépp ndaw bépp jigéen bépp góor boo xam ne yaa ngi ci biir Sénégal nga bëgg formation. ñi nekk sama ginnaaw parce que bu leen neexoon ñu ne Mamy Evans moo organisé Mamy Evans moo am idéem Mamy Evans mooy def Mamy Evans mooy wax duñ ci dugal suñu loxo duñ ci dugal suñu njëriñ. mais lépp loo xam ne rek dugal naa ko ci groupe bi ne lii dañ koy def ku nekk yaa ngi jéem a xool nooy def ba dugal ci sa sa doole ma leen di bu baax di leen sant di leen gërëm sànq Moustapha dafa wax lu am solo mu ne moom PDG la ñuy la ñuy woowee mais parce que on est des PDG bi ñu defee suñuy ndogu ba pare waa Topouka dañu dugal ne pourquoi ñun ñuy woowee suñu bopp pourquoi ñu pour pourquoi ñuy woowee suñu bopp PDG ñun ñi ku ci nekk yaa ngi fay bu dul benn di ñaari livreur yaa ngi fay tailleur yaa ngi fay ku lay defaral sa kuy nekk sa place ba ngi yaa ngi ut boo xam ne moo ngi toog sa place pour nga jàppale ko te fii ku ci képp koo xam ne yaa ngi sama ginnaaw boo amul trois am nga quatre employés boo amul trois am nga deux livreurs kon nag mënuñu euh, wax ñeneen ñi PDG du ñu woowee suñu bopp PDG ndax PDG ñoom li ñuy def ñun loolu la ñuy def kon ñun bu ñu neexee ñu woowee suñu bopp PDG. mënuñu tëj nag te duñu jox euh, quelques jeunes entrepreneur ñu présenté wu wax seen marque et tout ça wax ci association bi ñu tëj dañuy bàyyi Marie Ndiaye ak Fadoor rek ñoom ñu tëj après ñu jàll ci leneen.